bon déjà xam nga li nga wax nii rek moo lay wan nii lii du fi guléet fii ku ñu fi fal président nga waat prêter serment. promettre une nouvelle ère promettre et cetera xam nga ñun Sénégal on a un conflit de modèle mooy suñu problème c'est ce qu'on a appelé les états postcoloniaux xam nga dans un état postcolonial il y a un conflit de modèle d'abord il y a eu on n'a pas su jeter un pont entre ce qui a été notre histoire avant la colonisation avant l'esclavage et ce qui a commencé à être notre histoire à partir de la après la parenthèse de la période coloniale c'est-à-dire à partir de donc il y a effectivement un conflit de modèles te bu ñu jëlee suñu histoire dañuy gis ni nasaraan yi bi ñu fi ñëwee ay ceddo lañ fi fekk fekk fii ay kilifa diine maanaam ñun suñu aada ak suñu cosaan ceddo da ci bokk diine bokk ci parce que l'islam est entré au Sénégal très avec le califat du du Sokoto et du Massina ci la islam dugg Sénégal très donc bi ñëwee ñooñ lañ fi fekk am na buur yu dem tuub am na ñu tuubul mais dafa am suñu aada ak suñu cosaan wax na lu am solo nag fii ku fi judd ku ne war ngaa am liberté jàng lala neex war ngaa am liberté lala neex nga topp ko. liberté en tant que telle ce n'est même pas négociable je suis d'accord avec toi. c'est non négociable. c'est non négociable. c'est un acquis waruñu nangu kenn ku koy foqati ci ñun ak ci lu ma mënti doon nag yaa jur sa doom am nga gis-gis ci moom nga ne kat sama doom ji lii laa bëgg mu jàng parce que dafa am tamit loo xamante ne ni dañ ko war a accepté mooy accepté notre histoire coloniale nous décomplexer de cette histoire coloniale là parce que constitution bi moo ne la langue officielle du Sénégal est le français la première implication pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi c'est que ku fi judd na nga jàngi français parce que c'est la constitution xam nga yaa ngi wax équité di wax justice justice mi ngi commencer ci égalité des citoyens mënumaa xam li ne fii yaa ngi dégg te sama nawle xamu ko du ñu mën a dëkk donc conflit de modèle boobu daf fi am nous avons l'influence occidentale nous avons l'influence orientale nous avons l'influence euh, arabe mais comment faire en sorte de créer cette hybridation-là dans un ensemble cohérent et satisfaisant qui nous permet de mener notre existence en paix je pense que nu nous l'avons réussi jusqu'ici et ce n'est pas négociable beneen bi mooy l'espoir mais mun a damay yaakaar man damay ragal yaakaar tasaat. yaakaar waaw damay ragal parce que n'a pas posé les fondamentaux mais mun na nous sommes dans un pays où il y huit millions de personnes yoo xam ne jàngu jànguñu métier jànguñu alxuraan jànguñu l'école mënuñu dara nous sommes dix-huit millions te ñooñu. ñi ngi am diggante fukki at ak juróom ak 40 ans ñooñu noo leen di wutalee liggéey la question de l'employabilité c'est une question qu'on doit poser la question de l'adéquation de la formation et du marché du travail c'est une question qu'on doit poser ñun lan la ñu bëgg ci Sénégal il est bien beau de parler de renégocier des contrats de parler de partenariat win-win mais encore faudrait-il nous démontrer que les partenariats en cours ne sont pas des partenariats win-win on a comme l'impression que depuis que le Sénégal existe tous les partenariats que tous les présidents qui sont passés par là et toutes les administrations ont signé avec les partenaires bilatéraux ont été en défaveur du Sénégal mais loolu bu doon dëgg kon Sénégal du yegg si fii tey ndax amuñu dara. au lendemain des des indépendances on avait quoi on avait même pas d'économie loolu bu doon dëgg du ñu yegg si fii effectivement il y a moyen de renégocier certains termes mais on ne peut pas dire que le Sénégal a du pétrole le Sénégal n'a ni la technologie ni la connaissance ni ni les les hommes qu'il faut hmm? pour aller exploiter ce pétrole la tu signes des contrats avec des multinationales qui mettent des millions de dollars par jour pour exploiter ce pétrole la ba pare nga ne yow tu vas avoir le contrôle de la compagnie par exemple nommer le PDG nommer le DG alors que yow sa dërëm demu ci xam nga may mun a bu quand une société vient pour explorer le pétrole du Sénégal Sénégal du ci def un franc danaan ko demal seet soo gisee ñu xool nu ñuy def boo demee ba gis pétrole bi nga ñëwaat ne ko gis naa pétrole bërëb sàngam nangam ak sàngam def say étude ba teg ne réserve yi nangam la mu ne la waa d'accord mais loolu léegi xaaral non c'est important mhm. parce que on a trop parlé de pétrole et de gaz et on a fait croire aux gens que le Sénégal n'y gagne rien c'est important mais woon la désinformation là dafa doy il faut que un moment ñu toog ñu wax lan moo fi am nan la ñuy seetee pétrole nu ñuy gisee pétrole bu ñu ko gisee ba pare nan lañ koy exploité la majeure partie des gens qui parlent du pétrole n'ont pas lu le contenu mais Pierre euh, désinformation bi jeex na à partir du moment où Bassirou Diomaye Faye va être investi euh, ñu jox ko les les les armoiries de la nation vous vous en 2012 souvent les opposants ils ont un discours démagogique Macky Sall dafa promettre woon ne bu ñëwee il va renégocier le contrat de l'autoroute à péage. et 500 000 emplois par voilà. an en plus. 500 000 par an. <laughs> le carburant mhm. bu ñu jegewul Mali. Mhm. en tout cas va coûter moins cher. Mhm. Euh, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir non seulement il n'a pas renégocié le contrat mais tranche autoroute beneen bi nga xam ne ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon war a tabax daf ko joxaat Eiffage. c'est presque en deux mille euh, en deux mille euh, vingt ou deux mille vingt que le contrat a été renégocié et puis ñu xoolaat yenn pàcc contrat yi ñoom xëy na bañ daan wax euh, ils avaient besoin de manipuler les les les les masses euh, et peut-être que xamuñu woon Euh, le modèle de fonctionnement de l'État les relations entre l'État et ses partenaires techniques et financiers mais ñu xam am na discours boo xam ne dans six mois dootuñu ko xam déjà bi ñu leen bi ñu leen nommé bi ñu leen falee Euh, commencé nañu naan dañuy tijjeeku ci suñuy partenaire technique financier alors que ñoom ils promettaient euh, nu mu tudd un orage a euh, ces partenaires technique de financier est-ce que loolu du dakk tey xam nga may mun a lii ñuy wax ni c'est important xam nga lu tax question bi nga posé moo tax on a encore de l'espoir te bu ñu bañee nit ñi seen yaakaar tas mu metti ci ñoom nañ leen wax li nga xamante ni nii moo am parce que bu dul loolu ñaleen fal ñoo leen fay fekk jëlee leen fa parce que espoir bi moo rëy li ñu leen promettre dafa rëy te ñun ñi nga xamante ni nii xam nañu xam nañ ni am na loo xam ne mënta ne parce que dafa am lu ñuy wax idéal politique am lu ñuy wax réel politique quand tu es dans l'opposition nag tu parles de l'idéal nañu wàññi suukar nañu wàññi ndox nañu wàññi diwlin nañu nañu renégocier contrat yi nañ def c'est un idéal parce que peut-être xamoo la ca biir lan la mais boo demee ba xam li ci biir tu es confronté à la réelle politique maintenant nag dangay nekk dans une position paradigmatique parce que da nga naan wop maa fi diggee woon lii waaye lii moo am la ma diggee woon mënta nekk te malheureusement les hommes politiques ne reviennent pas vers les populations pour dire la ma diggee woon mënul nekk ndax sàngam ak sàmmagal sàng te loolu mooy jur violence moo tax ma ne la désinformation bi non seulement dafa doy mais il faut que ñu expliquer nit ñi parce que ça va contribuer dans l'avenir à pacifier l'espace bu dul loolu booy dinañ dal seen kaw et ça c'est parce que ils leur ont promis monts et merveilles mais ku yàgg ci système yàgg ci état xam nan la état di doxee xam nan la yenn contrat internationaux yi di doxee xam fi Sénégal toll ak li nga xamante ne ni moom la ñu am la ñu mën la ñu mënul la ñu ñàkk la ñuy wuti la ñuy wàlliyaan la ñuy leb am na loo xamante ni doo ko sañ a wax wala boog boo ko waxee tu ne le dis de bonne foi donc espoir boobu noonu dafa rëy torop pour les pour les possibilités du Sénégal c'est-à-dire espoir bi moo démesuré par rapport ak possibilité ak marge de manœuvre yi Sénégal am mais quelle est la première conséquence aujourd'hui de l'élection de Bassirou Diomaye Faye